par le risque pays bi nga xam ne soulevé nga ko ak euh, l'augmentation du du du taux directeur des différentes banques centrales. Mhm. Euh, surtout ñi nga xam ne ñoom ñooy les les les pourvoyeuses de fonds. Mhm. Euh, est-ce que loolu rek moo mën a expliquer aujourd'hui que Sénégal levait au rebond mhm. avec ce taux élevé là. mais oui en fait loolu taux taux booy taux taux taux directeur taux taux d'intérêt bi ngay am sur le marché des eurobonds. Euh, li koy justifier mooy loolu réputation parce que risque réputation da nga daan dégg président Macky Sall naan lu tax ñun ñu ñuy lebale avec des taux élevés alors que bu dee pays tubaab ñu leen lebale ak 1 pour cent pour cent c' était juste la notation xam nga àdduna bi dafa am ce qu'on appelle les agences de notation internationales comme Standard and Poor's Moody's Fitch Dagon bon en Afrique nous avons West African Rating Agency WARA nous avons Bloomfield dañuy joxe ay notes comme comme composition dëkk yëpp dañ leen noté maintenant plus la not e bonne sa not mooy joxe sa taux par exemple un un pays noté triple A c'est un pays qui a 20 sur 20 kooku boo koy lebal amul benn risque. mais suñu note elle ne s'est pas dégradée ñun on est toujours à B+. B+ waaw B+ c'est sur 20. c'est pas la moyenne. waaw avec ce B+ là on mobilisait de l'argent à des taux euh, beaucoup be, be, moins. mais boobu taux directeur de 0 pour cent da ngay jël 7 7 wàññi ci le le taux parce que eurobond c'est c'est en eurobond dañ koy tuddee eurobond mais c'est en dollars c'est des i obligations c'est en dollars comme c'est en dollars si le taux directeur de la banque de la réserve fédérale est de 2,6 pour cent munoo am euh, États-Unis sax kenn mënu fa lépp mooy de mooy de mooy du taux directeur loolu moo indi boo nekkee pays Afrique boo doon am 4 pour cent da nga ciy boole maintenant le taux directeur parce que les investisseurs xaalis la ñu wut. mais tey euh, dollar bi mu ngi nekk presque ci même niveau. Euh, que que que waaw moo tax moo tax. lool dafa euh, war a nekk avantage ci ci ñun ñi nga xam ne euh, ñoom ñun ñoo nekk dans la zone CFA plutôt euh, parce que différence bi barewul. waaw mais c'est que bu àdduna bi xam nga lu rôle banque centrale boo gisee banque centrale souvent ñu leen di attaqué te duñu mën a tontu benn benn mission centrale la banque centrale am muy maîtriser l'inflation prix yi bañ a yokk. maintenant bu banque centrale sentir que xaalis dafa bëri ci marché bi prix day yokk léegi foofu banque centrale ñëw pour wàññi génn xaalis boobu léegi pour mu génn xaalis boobu moom day bëgg day bañ a lebale day yokk taux dañu woowee taux directeur parce que taux directeur boobu banque centrale moom la banque commerciale bi di jël lépp ko pour lebale mooy woo moom la ñuy le taux de rescompte le taux d'intérêt des banques commerciales maintenant banque centrale bu yokkee taux rek banque commerciale day yokk taux bu investissement day wàññeeku consommation day wàññeeku production ainsi de suite maintenant si les banques centrales Europe fi ñu ngi ci 4 pour cent xëy na loolu tax ñu jóge ci marché européen dem euh, au niveau des eurobonds parce que 4 pour cent de taux directeur de la banque centrale européenne foofu boo fa doon lebee xaalis di nga dem 8 9 ba 10 pour maintenant nag Sénégal montant bi mu doon lépp dafa xaw a bëri dafa xaw a bëri maintenant xëy na l'État c'est une continuité mais dans la loi de finance xamoon nañ ni moment bi waroon nañu dem lever lever eurobond de de de de de presque euh, quatre cent soixante et quelques milliards. donc euh, li may wax rek dans mon livre comment voter les Sénégal j'avais écrit que ni il faut que ñuy organiser élection au Sénégal ay septembre wala wala wala wala octobre permettre gouvernement buy ñëw mu voter budget parce que lii muy def nii lépp on l'avait programmé en 2000 23. donc da nga bëgg a ne le régime place euh, euh, nu mu tudd ne ne ne devrait pas assumer la la paternité de de cet emprunt. waaw ah, mais mënu ci dara c' est la mu ngi ci loi de finance bi mënu ci dara. c' est c' est déjà prévu donc du ñoom ñoo nekk l' ah initiateur. non mënuñ ci dara ah dafa gaaw pour nga génn defar ko ba parce que xam nga état li muy jot ci xaalis ressources yi muy jot. d'habitude lu ci bëri am na yu ñëw par mois yu jóge douane ainsi de suite mais am na yoo xamante ni par an lay dugg yi par six mois ainsi de suite maintenant mënoo xaar mobiliser ressources yooyu pour assumer say dépenses da ngay bëgg di am l' argent frais maintenant argent frais nag da naan bàyyi may lever ay bons du trésor wala ay obligations en attendant su ma ñëwee euh, balaa décembre su ma jotee xaalis ma fay donc état budget ay prévision la léegi 2023 ba ñu demee assemblée lañu ne li lañ bëgg a am muy seen 5700 milliards yi ñoo nga xamante ne mooy budget Sénégal ren moom la war a am suñu cinq mille sept cent milliards yi voilà <laughs> wala yow mënoo assumer mënoo assumer euh, budget bi non parce que budget bi dafa dafa dañoo xaw a manqué sincérité buñ koy buñ koy def y avait trop de politique ngay dégg ñaan ay sept mille milliards tout cela te xam ni lu bëri changé nañ ko ci ci budget bi euh, endettement bi doo ko ci dugal da ko ci war a génne tout cela mais en fait Sénégal dañu am budget te duñ ko atteindre mukk dañ koy wax nii mais après duñ ko atteindre mukk loolu nag il faut que il faut que ñu corriger ko naa nag boo nee lii ngay am prévision la mais dépense da nga koy assumer xam nga dépense yow boo nee lii dama koy dépense loolu da nga koy dépenser mais li nga ne danga koy am mën nga ko bañ am loolu mooy indi nag déficit budgétaire yi moo tax continuer na nga gis déficit budgétaire c'est comme si dañu xam ne duñu am lii ñu wax ko in fine duñu ko am mais Euh, am euh, émission bi émission eurobond bi dafay dafay poser beaucoup de problèmes mhm. euh, ci taarixu koo xam ne ku mel ni président Macky Sall nga xam ne dafa ñëw prôner un endettement un endettement un endettement massif mhm. xëy na doon na doon choquer les acteurs de de de de l'économie ak dans les chancelleries occidentales mais dañoo am un régime boo xam ne Euh, dafa contre l'endettement à outrance l'endettement massif bi nga xam ne euh, moom la nguur gi nekkoo woon beneen mbir mi mu ñu am régime boo xam ne dafay dafay dafay prôner un souverain un souverainisme beneen bi ñu am nguur boo xam ne dafa yàgg jël ay positions euh, contre les contre les les les les partenaires euh, techniques euh, comme FMI Banque mondiale euh, le recours à ces partenaires là daf ko yàgg daf ko yàgg daf ko yàgg mettitlu donc ñu ñëw tey on apprend que euh, def nañ émettre nañ eurobond à quatre cent cinquante milliards euh, pour euh, financer le déficit public et le déficit de la balance de la balance commerciale mm-hmm. on doit s'inquiéter non en fait wala euh, dina permettre l'économie souffler un peu mais pas day souffler et la banque centrale day souffler aussi parce que boo indee ay ay ay devises da nga koy jox day dem ci banque centrale da koy mën a permettre moom aussi mu mën a couvrir eh, importation yi nga xamante ni dañ koy def parce que banque centrale dafa soxla devise pour jënd à l'étranger parfois eurobond yi bu ñëwee c'est c'est une très bonne chose pour permettre la banque centrale de respirer mais la deuxième moom laa leen naan ñii dañu dérouler mais loo fi changé ci euh, loi de finance. ba nga def loi parce que mënoo ñëw ne parce que de xam nga dépense da nga koy assumer par exemple man en tant que enseignant à l'université dañ may fay sama salaire xaw ma situation sama yoon nekku ci situation réew mi chaque mois dañu may virer xam nga dépense kon da nga koy mais recette yi nga ne moom ngay am mën nga ko bañ a xam nga mun nga bañ a am recette mais dépense moom da nga koy assumer léegi nag. boo nee par exemple ah dama ñëwoon kat ñi fekkoon naa ñu ne dañuy def lancer eurobond tant de milliards man su ma dama koy dagg boo ko daggee doo fay salaire doo def doo def benn dépense. mais mais mais mais euh, su ma dégloo Ousmane Sonko euh, nee na liggéey nañu subaak ngoon guddi bëccëg euh, liggéey bi di ngeen gis bientôt les les les fruits ci ci ni ma comprendre ñoom seen politique xëy na mënoon nañu renoncer à cette eurobond là et puis jéem dans le dans le marché intérieur euh, c'est-à-dire redressement yi ñu nekk di di di di def aux entreprises minières euh, à certaines à, à, à certains secteurs de de de rente mhm. redressement yooyu mënoon na remplacer euh, l'émission de cette de cet eurobond là qui est trop cher pour mais, les finances mais l'argent frais xam nga lii argent frais la xaalis bu dugg mais bële aussi argent frais lay par exemple même boo redressé paiement bi du da ngay ñëw rek ñi nit ñi génn xaalis jox la quatre cent soixante et quelques milliards c'est pas n'importe mais mënoon nañu ko faraatu de. Euh, euh, remise fiscale yi fi yi parce que tabaski bi ñun dinañ xaar ñun ñee ñu Ousmane faraatu pour fay ñu si <laughs> mais ñoom ñoom ñoom c'est des inspecteurs des impôts ñoom xam nañu niche yi. xam nañu euh, toute la toute la toute l'assiette fiscale ñi ko fay ak ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko fayul ñun sax ci lañ bokk. <laughs> mais mais loolu lu mu amee lu ñu amee solo mooy dinañ am temps euh, génn ko bu ñu ko débusqué xëy na deux mille vingt cinq bu ñu defar seen budget dinañ am visibilité mais instant bi nii euh, nga déstabiliser fi nga xamante ni fa fa nga jàppee am ses revenus boo ko déstabiliser temps bi ngay am pour defaraat ko parce que lii nii nga programmer ko ñëw rek yàqu ko balaa nga koy programmer waat c'est pas n'importe quoi te xaalis état dépense yi du du la xaar. salaire fonctionnement yooyu du la xaar da koy def tous les jours mais ressources yi mën na bañ a ñëw entreprise mën na la wa bañ war a fay nga jàpp ne kii dina ma fay tàng mu dem fay léegi léegi yooyu nag mooy indi déficit budgétaire moo tax xaalis buy dugg l'argent frais loolu kenn du ko fooye mais en plus dañoo soxla dañoo soxla ay ay mais emprunté ñoom loolu lañ doon reproché Macky Sall. Mhm. emprunté pour résorber le le le le déficit euh, mhm. budgétaire et le déficit de la balance commerciale. Mhm. Euh, gënul woon ñu emprunté pour investir dans des secteurs euh, porteurs de de de de croissance. oui mais en fait xam nga loolu. yaa cette tradition là mënuñu ko mënuñu ko rompre. xam nga ñoom defaguñ ba léegi loi de finances rectificative mooy ça veut dire que li li li li li daw depuis bële passé et trop short. pour ñu laal loolu c'est-à-dire que loolu c'est du sérieux xam nga quand une machine boo xamante ni c'est huilé état dafa soxla am liquidité parce que dafa am yoo xamante ni mënta xaar maintenant maintenant seeni ressources budgétaires yeneen ressources yu ñu mobiliser ci yeneen secteurs yi moo leen di permettre moo leen di soulager au niveau de du déficit budgétaire loolu mën na wàññi déficit bi nga xamante ni euh, lii am dañ koy téye ba pare mais pour nga atteindre say objectif en termes de de recette loolu c'est c'est c' est quasi impossible loolu mooy une déficit budgétaire yi ñun la may nañ la sax ba 3 pour cent c'est à peu près mais da ngay dégg ñu dem Sénégal bay 6 pour cent 4,5 pour cent et ainsi de suite maintenant nag bu ñu trouver d' autres de ressources loolu day am comme impact positif mooy day wàññi déficit budgétaire bi bis bu ñu defar seen budget ak ñoom boobaa dinañ ne léegi dinañu wàññi une grande partie de l' endettement extérieur léegi ñuy lebe au niveau du du marché intérieur parce que Sénégal dafa décidé woon mu ngi lebe mi ngi leb jusqu'à présent mi ngi émettre des bons du trésor parfois sur le marché euh, régional euh, de la BRVM mais eurobond yi d'habitude 2021 la gëj a dem sur le marché des eurobonds mais demaat na fa parce que aussi dañoo soxla woon aussi des des devises parce que banque centrale aussi dafa soxla ay devises pour soulager ñi nga xamante ni dañu dañu importer te lu ñuy importer dafa bëri. mais est l'origine bi ñuy émettre eurobond bi. Euh, est-ce que destination finale bi c'était la résorption du du déficit euh, budgétaire et du déficit de la balance commerciale. non mais xam nga wala dafa am réorientation. non non defaguñu réorientation xam nga état bi day xam euh, lii dañ koy programmer ñu ngi ko programmer depuis deux mille vingt trois depuis deux mille vingt trois lañ ne lii la ñuy def moment bi la ñuy lever eurobond fii moment bi la ñuy lever bon de fii ba mu ba mu leer. loolu nag doo ñëw rek ne ah non non bëgguma dama koy désta boo ko déstabiliser c'est-à-dire que faw xaalis waroon parce que c'est de l'argent frais mooy mun a l'argent frais mooy xaalis bu teew dañ la koy jox nga indaale ko JP Morgan bu ko joxee rek gars dañ koy dañ koy dañ koy indi banque centrale mën ko utiliser kooku munoo koo weccoog xaalis boo xamante ni yaa ngi xeex ñoom may mun a fayaguñ la di war a dawlanteeg yow yu demee noonu kooku doo jël boobu quoi doo jël naan population bi non non fayaguma salaire yi xaar leen dans 15 maa ngi jàpp ñoom may mun a ñoo ngi bu fayee après ma fay leen kenn du la déglu